ay ay échéance électorale lañ jëm te ndaw ñi moom ndaw président de la république lañ taxawaay bi ñu am mooy muy taw muy naaj muy tàng muy sedd ñi ci côté président de la république benn objectif lañ am muy jox ko ndam fexe ba département de Mbacké dégg wéewu parce que lenn lu gën a essentiel loolu pour man amul li ci des nag c'est une question d'organisation maa ngi lancé un nappel solennel ñi nga xam ne ñooy kilifa yi le minimum mooy depuis investiture yu génn le minimum moo doonoon ñoom ñi nga xam ni ñoom lañ investir ci liste yi ñu toog lëlu waxtaan teg ay stratégie ànd koog ndaw ñi mais ba tey gisuñu loolu ñi ngi leen di rappeler seen rôle loolu seen rôle la en tout cas ñun ndaw ñi lépp luñ ci waroon a def def nañ ko taxaw di leen xaar boo fàttalikoo jël nañ fi engagement woo presse bi yëpp teg suñu feuille de di xaar ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi jusqu'à présent kenn déggu leen kenn gisu leen te nag attention fii parti bi lépp lu fi yëngu lépp lu fi dox c'est la jeunesse kon nañu jël intérêt personnel yi teg ko nële nañu jël guerre de positionnement yi sànni ko nële xam ni président de la république moo soxla nañu jox nañu nañu tegu ci yoon wi nga xam ne moom mooy jox ndam moom mooy jox majorité son excellence le président de la réplique Macky Sall ngir mu mën a wéyal li nga xam ni mooy liggéey bi nga xam ni moom la entamé Sénégal mën a jëm kanam kon encore une fois maa ngi laay sewaat appel à tout les militants sympathisants leaders ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk ci département de Mbacké ñu unir les forces mais bañ koo teg ci naxante dañ koo teg ci wuruj dañ koo teg ci guerre de dañ koo teg ci ay calcul politique ndaw ñi nag ñi ngi toog di leen xaar buñ yaakaaree la daan am mooy am dañuy nax seen bopp jël nañ suñuy matuwaay taxaw di leen xaar lépp loo xam ni moyen la bu ñu war a mën a accompagner bu ñëwut daañ taxaw jàmmarlook ñoom que ça soit très clair parce que nag politique waxi kase defu ko dañu am benn programme bu yaatoo yaatu ñu war ko étaler war a dem ci marché yi war a dem ci quartier périphérie yi war a dem ci onze zones yi nga xam ne ñoo composé dëkk bi war fa def ay acte social war leen a conscientiser soxla nañ ko ñu accompagner soxla nañ ko ñu jàppale te kilifa yi nag seen loxo yeex na mais jusqu'à présent kenn revenir aguñu bu fekkee nag jàppale président moo leen ñor bu fekkee jox ndam président de la république moo leen ñor nañu gëstu ndaw ñi buñ ñu gëstu dañuy taxaw fas suñu loxo parce que nag mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam wasalaam. kan ngeen ci interpellé ngi ciy interpellé mooy ñi nga xam ne président investir na leen ci liste bi mais nag ki ci bopp bi mooy ki nga xam ni mooy ki ki jiite liste bi muy Galas intervention bi yeex na torop am nañ ay programme yu ñu war a def fi mu ne nii may waxee yoon yow ni waroon naa fekk suñu pré campagne tàmbali te tàmbaleegul kon ñi ngi koy lancer un appel mu bàyyi xel bu baax a baax ci mémorandum bi nga xam ne jeunes yi jox nañ ko ko maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla rek lépp loo xam ni wax nañ ko fi muy njariñu Sénégalais yi mais particulièrement di njariñu dëkk bu sell bi ndax ñun kat ay taalibe lañ te bu ñu sañoon lépp loo xam ne dañ koy wax dañ koy teg ci ak taalibe teg ko ci yar teg ko ci ay teggin su boobaa dina mën a jariñ ñi nga xam ne ñuy population bu Touba maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm vraiment di la féliciter ci sa taxawaay aussi au niveau du département ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def mais également maa ngi lay sant bu baax ci opportunité bi nga xam ne may nga ma ko ma mën a wax ak sénégalais yi di nuyu bu baax a baax Cojer di leen sant ci seen taxawaay di leen gërëm parce que dara a neex ci àddina yaa ma doy ba ñëpp taxawee dañ dañ ma tànn ne ma yaay suñu coordonnateur yaa ñuy coordonné foo xool foofu lañu xool loo wax loolu la ñu wax kon jàpp naa ne loolu honneur la cër boobu ñu ma jox aussi maa ngi leen koy delloo di leen wax ni la combat continue na ñu gën a suréwu gën a ànd gën a bokk ndey ak bàyyi parce que loolu rek moo ñu mën a jariñ loolu moo mën a jariñ son excellence le président de la république mais également lool moo ko mën a may ndam le soir du 31 ñu dégg wiiw waaw maa ngi sant euh, soxna Loota Gueye euh, xale Aliou Ngouye Ndiaye ah. moom mi nga xam ni place am aussi lañ defee émission jataay bu am solo bu yaatu bi ah, ah, moom it macha allah kenn du moom mu jiite jeunesse féminine bu COJER bi mm-hmm. di ci bay waaram bay waar bu ama am solo vraiment mm-hmm. maa ngi koy maa ngi teg nuyoo aussi ci loxo leader am Aliou Ndiaye mu jàllaleel ma ko ndax xam naa bu moo ko tegee ci loxoom mm-hmm. dina ko mën a jox incha allah <laughs> jaajëf